jërëjëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD yi mbokk yi jëmm ji mooy Serigne fàllu ñaan di borom xam-xam sénégalais yu bëri doon nañ dégg ñu naan coupe du monde 2018 am na benn sénégalais boo xamante ni da doon ñaanal équipe nationale ba France mbokk yi jëmm jii la muy Serigne Fallou ñaan di borom xam-xam ren bi marché bi tàmbalee teel naa génn wax ne bu ñu ma bàyyee équipe bi équipe bu Sénégal ma indi coupe bi waaye bu ñuy di wax ma téye sa loxo croiser les kon borom xam-xam nañ leen bàyyi ñuy wax ñi amul xam-xam noppi mu jàmbaar di kilifa di ñaankatu yàlla mbokk yi Balla Gaye Boy ñaa ku ne gis na signature bi la ñu waxante danañ ci laaj jëmm ji combat bi nan lay demee ndax borom xam-xam la te mbokk yi jëmm ji ragalul bokkul ci sëriñ si nga xamante ni dañ naan la laal fii wala laal fee wala di laam-laamee moom dalay wax lu leer nañ ñi li waral mu ne man naqariwuma deret waaye damaa ñeme dëgg yor nag béjjën bu garaaw tey danañ dugg ci xam-xam bi waxtaanee ko mais laata loolu dañuy bàyyi sëñ Fallou ñaan mu nuyoog askan wi ñu soog a dugg ci dëgg-dëgg waxtaan bi sëñ Fallou ñoo ngi lay. yax baxoo bikum rabbi lawlaa duhaawakum asalaamaaleykum sëñ mm-hmm. tey moom dama bëgg ñu feeñal xam-xam. Mm-hmm. te tey dina xam ne Fallou mi daan gis ak Fallou mii du benn. Mm-hmm. waaw tey xam-xam dina feeñ. dëgg dina feeñ. te lépp loo xam ne si dañ koy wax. te dañ koo nar wax ci ay fen mm-hmm. wala ci ay lu neex nit ñi mm-hmm. yàlla buñ yeggale la ilaha illallah waaw allahu akbar tey bokk nga ci sëriñ si nga xamante ne ñoom laa njëkk a découvrir ne ñii dañuy ñaanal équipe yu nekk extérieur tubaab nag preuve la xam tubaab danga koy wan mu gis am ñu ne sëñ Fallou buy jëflanteeg yow wala di la ñaanal daf naan la kañ lañ tàmbali nga ne ko tey mu ne la xoolal tey ak suba ginnaaw suba fi nga tàmbale ak fan nga jëm nga ne ñaan bu nit ki demee ba mënu cee wax lu leer na dagg ay jàjjeem te bàyyi ñaan yàlla lan moo tax toujours ngay faral di wax wax jooju na nit ki soo mën mënta jëf lu leer wax lu leer bàyyi ñaan. waaw xam-xam daa bëreetut ci senegal gaa yi xam-xam daa bëreetut wax ji dafa bari. ak ñi feeñ wax ji dafa bari ñëpp kay nee naa la fàllu mu njëkk ma ak fàllu mi daa bokkut te li ma lay wax nii balaa mën a neex. maanaam état bi waroon naa wut suur boo xam ne si da koy may sëriñ si ñu ñu woo ñi nga xam ne danoo dëggu ci seen bopp ne ay sëriñ lañ ñu dajale leen ci benn pénc jël ci armée bi ñu ñu sox ay bal ku ci ne waaw ku ñu ne la defarul ku nangoo dem nga dem su ah. boobaa man ci ñi njëkk dem ñu bind leen ci laay bokk ñu sox ay bal ñu taxaw ñu tiire ku ci ne ñu tiire ci yow ñetti bal ba xam bugg nga wàcc nga wàccoo ñi wàccul nekk dem ay sëriñ ndax xam-xam dafa war a am ci réew mi te dafa am. Hmm. am na ñu fi am bëriwul. Hmm. waaye am na ñu ko fi am waaye dafa néew. Hmm. li ëpp ay wax la ak ay naxaate. te wax ak naxaate dafa war a jeex. man bi may doog a commencé ci métier mi ñu bari lu ma doon wax. del def na ñeneen ñi del laaj xaalis del nangam yooyu yëpp ma ne leen du ma ko def damay dimbalee tey yàlla jox na ma xam-xam boo xam ne si. Sénégal gépp laay laase defi bépp sëriñ. bu la neexee jëlal sama tur nga fanaan ci nga xool. Ah. soo su su guddi jotee su ma la tiimut wax ak yow lu la neex man nga koo def. allahu akbar lii man maa la ko wax. te li may def te lu may def def naa ko ba noppi doomu adama mu mënatu ci dara xanaa ma dee yàlla saa yu nammee ma bañ a xëy di faj aajo. Hmm. mu ray ma rek mooy te ma faj aajo waaye fii ak maa ngi nooy damay faj aajo. billaahi wallaahi taala. kon yow sëriñ bu xam dara ak sëriñ bu xamul dara yow mën nga koo xam. ah waaw sëriñ bu xamul dara kay sooxee da nga ko waaw waaw. mais neex làmmiñ donte bu neexee làmmiñ bu toogee di wax rek war ngaa mën a yeewu ba xam kii li muy wax xam na ko wala xamu ko. nit ñi ñoo war a yeewu. waaye daal lenn laa lay wax mooy bépp xam-xam boo xam ne si mi ngi fii rek maanaam bépp loo xam ne si lu doomu aadama di doxal ci kaw suuf muy xam-xam. man tey dama koo yor te dama koo am. te li ma yor dama ko wóolu rëgalu ma déggoon wala monde bi laal lancé défi Sénégal ci boppam biir Sénégal. laa lancé défi. ndax li ma am kenn li ma yor fi jamono ji kenn mun a taxaw na fii yaa ko jàngal moo tax ñoom ñëpp laa laase defi kuy sëriñ na ñëw ñu taxaw nga ñeme ma ñeme ñu ñëw taxaw ñu ñu jël trois bali pistolet ku ci nekk ñu téye la tiire trois fois waxuma benn yoon de ku ci ne ñu tiire ci yow trois fois ba xam wàcc nga wala wàccoo waaw ba ci lenn laa lay wax maanaam euh, grand sëriñ de Dakar it. Hmm. yiy woote. Hmm. xam nga grand sëriñ Dakar bu njëkk bi mu xasee ba nelaw ñi fi ñëw yëpp kii da naan moom kii naan moom la kii naan moom la. Hmm. maanaam ki ko doon sax nekkagu ko. Ah? waaw. sëñ bi nag dugg nga ci gardu lébu yi de. sëriñ de dakaar nga ne. sëriñ de Dakar laa la tey damay dugg foo xam ne si maanaam xam nga man dawuma tudd. ay nit ah. wala may tudd ay sëriñ. waaw xam nga dem leen xooli sama émission yëpp dama daan ñëw rek raay ndax booba xam naa gara bi ma yor. waaye li ma ñam ku ko ñam bu la neexee cëpp cëpp. wallaay wallaay ndeysaan. waaw li ma ñam. ku ko ñam bu la neexee cëpp cëpp. maanaam grand sëriñ dakaar nit ku ko bëgg doon jamono ji ci man ngay ñëw ma jox la sarax yi tax nga doon ko te bis boo ko doonee bu ma la joxee sarax yi ba nga def ko képp ku ne waat moom la day ngay dee. billaahi wallaahi taalaahi maa ngi giñ ci alxuraan maa ngi giñ ci yàlla. waaw. sëñ Fallou sànq dama dugg si nga fël bunt bi ne ma lu hôpital mën ta faj man mën naa koo faj. loolu mën nga koo leeral est maanaam bépp doomu aadama boo xam si dafa feebar ba tëdd ñu faj ko ci hôpital mënuñu ko faj xam nga ñun ak médecine traditionnel mhm. maanaam médecine beneen moderne duñ juboo mënuñoo juboo mhm. waaye képp koo xam si dem nga foofu ñu faj la ba nga sonn mënuñu laa faj man boo ñëwee ma faj la ci deux jours li ma lay jox du la jox sangatu un mois jox sangatu maanaam ñaari sangat laa lay jox nga wér li ci des ci benn ginaar laa koy defee kese ginaar moom ba ma xasee ba te ginaar gu góor lu ma ci bëgg a def dama koy def loo mooy li ma la waxaat léegi maanaam jaam mënut a téye loolu ma def bu ma téyee ginaar bu góor. lu ma ci bëgg def dama koy def su ma ci bëggee taal nit dama koy taal bu ma ci bëggee fay dama koy fay su ma ci bëggee siiwal nit dama koy siiwal bu ma ci bëggee faj nit dama ci faj. te lool nee naa bu ma téyee ginaar gi lenn rek mooy tee mu nekk mooy fi ma koy defee ma dee kese. waaye sama bakkan bu desee man may faj aajo loolu kenn mënu ci dara. mais yow ku feebar tëdd ci lalu hôpital ay at mënta jug ay mbokkam janga janga jee ko yóbbu ko fenn. lan deux nee naa la du la jox sangatu 3 jours 2 jours laa lay jox li ma lay jox diggante timis ak gee nga koy sangoo nga jóg. ndax dama ci am ay ay résultats li ma yor dama ñëw jar bu ko woo ay nit yoo xam si kenn xamul ñaata nit ñooy ñëw sama kër. ma leen ko doon may pour di tester li ma yor waaye xam naa ne li ma yor dafa wóor te kenn yoru ko fii. Mhm. waaw. sëñ Fallou euh, tey bokk nga ci sëriñ si nga xamante ni gën nañoo tukki mhm. fu mel ne sous région bi fu mel ne Bénin waaye fu mel ne Kenya fu mel ne bi fu mel ne Mali dëkk yi bokk na ci dëkk yi nga xamante ni da fay dem mais dañoo gis ne dëkk yooyu sëriñ su bëri bu ñu fa demee dañ fay dem di jàngi mais yow da fay dem di jàngale sa xam parce que kilifa nee na ma sëñ Fallou bu ñëwee fii boroomi xam-xamee ñoo koy rang mu naan leen lii nii lay def lii nii lay saafara yaakaar naa loolu tamit ci la ci doomu Sénégal. waaw xam-xam bi dafa yàgg ak ñun ndax ñun xam-xam rek lan xam. ñun lii rek lan xam. Mm-hmm. soxlawuñ ci sax xaalis. Mm-hmm. ndax ñu baree bari boo déggee ñuy wax dañuy foog ne xaalis la waaye bu dee xaalis ñun am nañ ko ndax mënuñu ne manal nañ nit ñi dara ba pare te mënaluñ suñu bopp ñun ku ñëw ba fi ñu dëkk boo dugg see rek xam ne ñun mënal nañ suñu bopp ci biir ci saayir ak ci baatin mm-hmm. waaw aj faj aajo moom dañ koy def ci côté bépp maanaam dëkk yi ngay wax dëkk bu ne lañ ci dem maanaam max senegal bi nga xam ne moom mujj ci max yi. Mm-hmm. man nekk naa ci àll bi. Mm-hmm. booba maa ngi jël avion dem Guinée Bissau. Mm-hmm. pare jàll beneen dëkk boo xam si moog Guinée Bissau ñoo frontière te mënu woon a jaar ci feneen pour foofu laa mënoon jaar pour dugg foofu. moto laa doon yor di daw ci àll bi boo duggee sama TikTok vidéo yaa ngi fi bi ma demee ba nga xam ne def naa li may def lépp maag koo xam ne si bi ñu defee li ñuy def lépp ba ne Sénégal day dóor biñ toogaatee tuuti. Mhm. maanaam ñun biñ xoolaatee ñun liñ gis mooy dañ ñuy dóor. ci laa ne Aline Cissé ma ci laa ne waat gaaw daw dugg ci biir dëkk bi pour am connexion. bi ma ñëwee ci benn hôtel laa nekk hôtel bi gën a mag foofu foofu laa nekk. ak mhm. hôtel bi Xaddaafi moo ko moom. ma dugg ci hôtel bi ma paree ma ne Aline Cissé boo duggee sama TikTok mi ngi ci. Mhm. Aline Cissé nag génnee benn ginaar bu weex boobu rek lan ñu génnee loo woon suñ ko génnee woon kenn mun ta tee dañuy gagné. te man sama réew daf ma koo jaraloon maa daggal sama bopp bee def lépp te ma wax la lenn. Hmm. suur booba ci suba gi bi ñu dooree bi may ñibbisi man dama tardé sama vol. dama ko tardé. billaahi. Oh. te tourné gi ma tourné waatoon wax Alioune Cissé pour mu génnee ginaar gi looloo taxaat sama vol tardé. ndax dama bàyyi li ma doon def ñëw ci dëkk bi. am connexion pour wax lool war a delluwaat la ma doon jël tardé pour ma ñëwaat ci aéroport bi. billaahi wallaahi sama kii dafa tardé. te loolu ku ñëw ma war na ñaari bee yi ma jënd yëpp. Mm-hmm. ndax bi may dem aller retour laa jënd te bi may ñëw jëndaat naa retour. kon sama bee dafa tardé. te euh, Sénégal neexuñoo dimbali. Mm-hmm. man avant ñuy tàmbali damaa def vidéo ci yéen. Mm-hmm. wax lu leer nañ. ku mm-hmm. dugg ci vidéo ba dégg ko. tudd ay mu leer nañ. te ba ñëwee lépp noonu la demee. bi ma demee ba nga xam ne ñi ngi des ci dernier maxi bi ma paas génn. bi ma ñibbisee man jël gis naa ku jël samay vidéo yi. yoo xam ne si sama TikTok dama doon waxee euh, exact ñiy door ak ñiy dugal. di ko dugal sama TikTok. ñëpp di ko gis. Mm-hmm. te bin pare damaa gis ñu dagg wax jamay wax. Mm-hmm. di ko dugal mel ne man dama ne suur euh, max bii dama ne dañuy gagné te max boobu waxuma ci. lu dul Aliou Cissé nag génnee ginaar bu weex kese laa ci génne. mel contre Qatar nga Sénégal day door Qatar. Mm-hmm. mais à part loolu. Euh, yeneen yëpp dama doon wax heure yi. boo sama TikTok heure ngi fi ak date yi man dama doon wax ki may ku may jël dama daan la jëlal heure ak date ndax réew mi daa naqaree waxee. te tey jii gis naa ñoo xam ne si ñaari ñoo xam ne si ay sëriñ la leen di liggéeyloo. Ah. ñu jël sama billaahi ndax ay logoy sëriñ laa gis ci seen i TikTok. ñu jël sama vidéo dem dugal ko waaye loolu nan xam ne man mënuñu maa fay. man mënuñu maa fay man yàllaa ma mën a fay te pour mu fay ma faw mu ray ma. dee rek a tee tax ma fay waaye li ma bëgg a def kenn mënu ci dara jaam mënu ci dara. kon kaaraange gu wér la suñ fàllu yor. waxuma la kaaraange man waxuma man. waaye képp koo xam ne si samp naa la ku jëm ci ci yow na fay say bor man da ngay deewa bala nga handicap. Ah. lu leer laa lay wax. waaw. mais si Fallou côté boobu tamit bëgg naa ñu dugg fa boo xoolee fu mel ni àll bi tey Sénégal sax bëriwu fi woon mais tàmbali na fee bari bu njëkk ay beneen ay ay Togo nga daan gis ku dem ci sëriñ ne ko rayal ma diw ma yaakaar naa actuellement Sénégal yooyu tàmbali na am nit ma a ñëw ci di la raylu nit voilà. loolu bari na. <laughs> loolu kay loolu moom bari na waaye xam nga sëriñ léeg-léeg da ngay topp ci da ngay toll ci dimension boo xam ne si. Hmm. maam nit bu ñëwee sax du la ñemee wax reyal ma di waaye dina la wax ay junj pour ñeme pour xool fu mu jàlle ba wax loolu. Hmm. waaye man sequma ak nit di rey nit man parewu ma fee nekk di rey rek yàlla mooy rey. Hmm. man daal man daal lépp koo xam si bu ma xoolee ma gis ne dañ laa tooñ nga ñëw wax ba pare dama naan wutal ginaar bu xonq nga wut ginaar ma def li may def. su dee da ngaa feebar ma ne am nga feebar de sa biir bi nga ne ma wax nan ma ko de dem naa hôpital ñu ne ma feebar ma ne la dina dañ su dee da ngaa tëju ma ne la ñàkk nga wërsëg lool de. te da koy gis bu doon ku feebare ñëwut ma ne la kii ma jox ginaar gi feebar na de. Mhm. feebar sàngam la am. man samay wax day leer man damaa am xam-xam bëgg. mais loolu xooy la parce que yenn gis gu leer ko loolu. loolu nan ko tuddee faramason nan ko tuddee ko jaay boppam man bu booy booy ñu ne damaa jaay sama bopp am na ñoo xam ne nan man dama jaay sama bopp garaawul. parce que li ngay def ni muy gaawee. résultat yi toujours ni muy gaawee. moo gaaw nit day nit day soxla kayit ma toog fi mu toog ne la suur sangam di nga am kayit. ñu woo la. am naa ndaw soo xam si doomi président lay génnal. bi mu ñëwee waa ji nangu koo woo suur bi ma toogee mu woowaat ma ne ma waa ji maa ngi koy bind woo benn ñaanalu ma ko li ma ko wax mooy dinaa nangam taan ndaayam la. Ah? bi mu paree dana ko wuyu naa la te li ma lay wax nii bu dee amut li may wut ci àdduna yàlla bu ma ko am fenu ma de. ma nekkuma fii di wax comme yeneen sëriñ yi pour ñuy leen di dagg di tog tog kii nekkuma ci yooyu. nekkuma ci yooyu. man li may wax dëgg la. Hmm. te nee naa la bu ma paree ne dama pare. pour lekk xaalisu nit ñi wala ma pare pour naruma liggéey. di jël xaalisu ñun di ko tëddee. yàlla sàngoo sama ndeyjoor bii. waaw. Oh. billaahi wallaahi taala bu fekkee damaa nar nekk ci dëkk bii. mënumaa fajal kenn aajo. yàlla bu ma dund. Oh. te lii dama koy waxaat yàlla bu ma dund yàlla naa dee. soxlawumaa lekk benn dërëmu doomu aadama lépp lu may dimbalee nit am na ñoo xam ne dara te damay ñëw jàppale leen. damay ñëw jàppaleen mhm. te dinaa la may it benn affaire ci wàllum nopp waaw seen nopp képp koo xam ne si yaa ngi koy bind di ko jox jigéen wala muy góor ci ñun mhm. di ko jox sa jabar wala ku mën doon mhm. na nga koy def ci lu sedd nopp fii ak yaa ngi koy def ci lu tàng koo ko jox di ngeen am jafe-jafe man nga koo téye de doo leen tàqalikoo de waaye ci xuloo rayante rek ngeen mujje waaye doo leen tàqalikoo mukk soo ko defee lu sedd nag di nga ko téye dina nekk ci jàmm lu am dina la jox. lépp non maanaam bu mu nee nan ko def ci lu sedd mooy nan ko nan ko def ci café gu sedd. kii ndox mu sedd. wala boisson bu sedd wala café waaye am na ñoo xam la ñuy jox góor ñi ñu da ngay am problème. soo ko jàppee rek mën nga ko jàppale waaye du la du la amal benn njariñ da ngeen di rayante loolu moom dama koy may ñëpp. ay co numéro téléphone Serigne Fallou Niane le grand marabout chef religieux mi ngi noonu moom nag. national la waaye international la ndax yaakaar naa koo xamante ni ay réew ñooy dem di ko soxla di ko liggéeyloo rawatina Sénégal mais ay réew yi xam-xam nag réew yoo xamante ni tey boo leen tuddee Sénégal yi ba xam ne ñooñu dañoo am xam-xam mbokk yi ñooy soxla jëmm ji di ko liggéeyloo kon yaakaar naa am ko fi jàkkaarloog moom euh, ngir ngeen xam leneen ci moom ak cant la te loolu tamit ak tawféex la sëñ Fallou nee nga ma ku suur ci ànd bi. dama lay bàyyi nag nga expliquer Sénégalais yi ànd bi lu ko tax a jug ak koo ci suur nu muy def ak ban xeetu nit lañ war a suur ci ànd bi. waaw ànd bi moom du ñëpp lañ ciy suur nee naa la ginaar gi bu ma bu ma ci xoolee li ma la ci war a liggéeyal ba noppi. Mhm. ginaar gi. Mhm. su ma la ci xoolee li ma ci war a liggéey ba noppi. Mhm. waaw ci laa lay doog suur kii. léegi kii pour ma suur la ci daanaka euh, nan laa la ko mën a waxee maanaam artistes yi way tey jii. waaw te te guddi yi ñu toll artistes yu bari danañ fay. Mm-hmm. dañuy am jafe-jafe bu metti ndax dëkk bi man maa samp dëkk bi jamono ji man maa samp yow nga dana am artiste yu bari yu fay yu fay dina am ay sëriñ yoo xam ne si dañ feebar sëriñ lan lañ sëriñ rek sëriñu ñaankat ak sëriñu nangama ah. sëriñu ñaankat rek ndax yeneen sëriñ yi ñooñu suñuy ciir ñooñu ñoom lañ gëm ñooñu lu mën a am ak lu mën a tiital lu mën a rëyee lu mën a am Tuubaa lañ koy yóbbu ñooñu dañ leen di jox ceer ba bani dee waaye ma ne sëriñ si nekk ci biir liggéey bi ñuy liggéey ñun. Mm-hmm. ñu baree bari dinañ feebar te ñu bari maa ngi leen di wax ñu wuti gàllaaj ah, coow li neexatul de yëf yi dootul léegi nekk waxi kese de. Ah. waykat. bépp waykat boo xam si ba ngaa siiw boo ñëwee par 6 mois laay si ak yow. 6 nga siiw. maanaam 6 mois laa lay téye ngay siiw di cartonné. waaw loo génnee mu siiw loo wax mu siiw boo soloon ab tiset xotti ko ñëpp di solit tiset di ko xotti di say ci mbedd mi. laa ilaaha illallaah. six mois laa lay garanti. bu jàllee. bu mois yi bu jàllee. waaw contrat sama contrat yow day fay beneen six mois la ñuy da ngay bu ma taatee beneen six mois. Hmm. maa yow dañuy annulé beneen artiste laa mën a jëlaat. mais lu tax loolu tamit nga ba ñaari six a pourquoi ñaari six mois. ñaari six mois rek laa mën a liggéey ak yow xam nga nit du fen mm-hmm. te du osé te bool kenn du ko ñett. wax ji jeex na. bu fekkee ne ki nga xamante ni mbërum làmb la wala sax commerçant wala sax politicien parce que politicien tamit dafa bëgg bayre bayre boo xamante ni fu mu déposé daanaka ñëpp moom la ñu sànnil carte. waaw politique moom. li ma ci man bari na jamono ji ndax politique daanaka pour nit ki def ko faaw mu salte te réew mi kaay wax amul bëgg wax da ngaa salte. non man non booy booy ñu wax damaa salte ndax li ñuy tudd fii li ñuy tuddee sal fii ñëpp a salte Sénégal. ñi fi gëm yàlla bëreetut te ñi fi salte daa bari. mais leeral la salte balaa nit ñi jàpp ne. xam nga lan mooy tax mooy léeg-léeg nit dina la ah man de du def nangam dafa nit dafay ñëw ne ma dan maa defaral dan maa euh, contrat dama am contrat boo xam ne si exibet la du ma ko jël ndax contrat bi nangam nangam la carte baaxut. ma ko lan moo la fi indi. Hmm. yow li la fi indi nga di ko fajlu moo gën a salte is si <laughs> ne ko kay boo bañee yow lii la fi indi nga waroon a fañ fexe mu indi la fi. bay def loolu rek kon war ngaa mën a def. si bet yow problème yi nga am ba dawee tax nga ñëw ma koy faj. Hmm. kon war ngaa mën a jëli contrat si si maanaam publicité wu ma ma waaye dama lay wax rek nit dina la fi wax man nii laa mel hmm. damaa baax damaa nangam te yëkkatil million nga teg ko ci loxom nga xool ko nga dem hmm. woo ko nga ne ko waaye man ne damaa feebar est duma que du dee du wax kenn ne yaa ko dénk xaalis bi allahu nit ñu bari tey jii ñu ngi ci ay bërëb di liggéey fekk dañ leen a nopp mënuñoo wax mënuñoo jooy mënuñoo dem mënuñoo dikk fi ñu toog rek la ñuy toog duñ dem dun dikk fekk nopp nañ leen bu yàgg di leen waaj a rey oh. léegi yooyu yëpp nga foog ne di ngeen di ngeen nekk ci jàmm kenn du nekk ci jàmm seen senegal Sénégal gi maa fi samp te lu leer laa lay wax man ay président laa bëgg ñu may ñëw ministres yi di ñëw. Hmm. artistes yi di ñëw xale sax bëgguma koo ñaanal. lu tax loolu xale yi bëgg nañ dara nag am nañ jom de. non samp bi ma yor bu ma ko sampee xale mu dee. Eh. billaahi wallaahi taalaa li ma yor bu ma ko sampee xale mu dee moo tax bu dee xale nii dama lay ñaanal nii rek bala nga dem wala ma may la sunguf waaye li may liggéey dëgg duma ko liggéeyal xale. te réew mi am na lu ma la bëggoon wax bépp woo xam ne si président nga nga bëgg ne da nga laaj réew mi mm. ne da ko bëgg a laaj ci yoon mu sell nga ko bëgg a yoreel booy boo nga dem tëddi te nelaw te jiite ji ay jàkk kon dafa réew mi tax ndax réew mi moom faaw nga jaay sa bopp doo koy jiite mais jaay ci ban anam tamit leeralal. loolu leneen la ñi ñi soxla réew mi bis bu ñëwee ma wax leen lan mooy jaay si bopp ndax yow soxla amoo njëgu réew mi ba ma lay wax njëg gi. ok mais jaay sa bopp boobu est ce nekkul ne comme sacrifier benn partie sa parce que mais yooyu yooyu ëpp na de. mën na nekk lu ne. mais nguur jar na ko. <coughs> réew mi ñi ko fi jiite ñëpp boo jaayut sa bopp ndax xam nga léegi-léegi nit ñëw toog mm-hmm. nelaw bu ma yoree réew mi lii laay def lii laay joxe lii laay mel nii laay na nganaan naan dafa baax dafa yaru dafa nangam bu yoree réew mi dangay day nekk beneen nit mënoo ci dara beneen nit lay doon mënoo ci dara toujours toujours président bu fi toog ñi la fal mm-hmm. soo paree du jubboog yow ndax ka nga doonoon doona toog mm-hmm. dégg nga ka nga doonoon doona toog sëñ Fallou ñaan di jàmbaar di borom xam-xam di kilifa ay ca mbokk yi numéro téléphone sëriñ bi mu ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek di nga ko jot mais sëñ Fallou euh, boo xoolee diw bopp man wax naa la ko fan yii paas nee naa la euh, tey euh, pharmacie wala cosmétique wala képp ku jaay diw war na ñëw waxtaan ak yow ba nga ne ko demal nga ubbi. ndax ñi ma gis nga leen di jox ay diw bopp ñu koy jëfandikoo seen karaw yi sëq kenn xamul lu mu toll ba man des fois yow laa gis ci sëriñ buy jaay diw ma am fitu ba ma nit wooyee man la jëlal ci garabam bi loolu nag preuve yi ma gis moo tax ma am fit ak osé di naan nit sëñ Fallou ñaan garaw garabam yi day sëqal li nga xamante ni mooy karaw. waaw produit keroog maa ngi la koy wax produit yu cannelle ñëpp dañ koo xam. te te kenn da cee mënatul dara. Hmm. produit cannelle dox na. Hmm. te képp koo xam ne si da koo bëgg a faatoo la moo la fiy jëlee ak ku mën a doon bàyyiwuma kenn. cannelle dem na. fi ne nii amul boo ñëwoon ci kër gi mënoo ko am boo demoon ci ña koy jaay fi ne nii ah ñenn ñoo ko fiy joto yor waaye fi ne nii jeex na suñ benn euh, fii ak une semaine dina amaat ku soxla da ngay commandé waaye fi ne nii kenn mënut a woote suba wala ginnaaw suba nga di ko am ku ci soxla daal faa nga commande ci bi nag ah, ñu xam parce que euh, tey ñu ngi ci mën nañ la 15 teg vidéo bi nit woote nga ne ko am na fekk mu ne dangay fen fekk wax na dëgg fen nga fekk yow yaa leeralul. tey le jeudi le 15 décembre 2022. leer lépp lu may waxati ci àdduna day leer ndax doomu aadama yi jëratul ma fen see mm-hmm. bu dee xaalis. dañ koo am ba mu doy. kon jeex na bu dee xaalis dañ koo am ba mu doy. fu mu toog dañuy yor xaalis suñuy sega ngi nii tege. suñuy sega ngi nii tege. xaalis moom jaaxalatuñu. ndax ni ñuy def ba nit ñi am ko ñun def nañ ko ba am ko. kon loolu lijjante waaye aaja ju nit indi ma faj ko. aaja ju nit andi ma faj ko kenn mënu ci dara loolu moom kenn mënu ci dara xanaa nga ñëw ñu ne la fàllu dee oh. bu boobaa man nga dem tëddi waaye fii ak maa ngi dund damay faj aajo te nu ma neex laa koy faje nee nga ma garabu kàttan garabu néew kàttan ñu bëri dañ koy calmer mais faj ko ba mu wér moo jafe nga ne ma man dama koy faj ba mu wér nit kuy tëlee nit kuy gaaw a daanu. waaw loolu waxoon naa la ko maanaam dafa am ñoo xam si dañuy amaale rab. am ñoo xam ne si seeni siddit mooy sonn. Mm-hmm. am ñoo xam ne si am nañ kàttan waaye maanaam wërsëgu tëju ba ba nga sonn sax maa nga xam ne yow da ngay xalaat rek. Mm-hmm. mën na tax sax nga néew kattan mm-hmm. bu dee rab la ci benn jour laa koy dindil bu dee takk xala la ci benn jour bu dee takk xala sax waxatuma benn jour. timis laa la koy dindil. Ah? su doon takk xala la nga ñëw timis timis gi laa koy dindi. Ah, te li may wax li may wax dama cee ragalul. bu dee tax la nga ñëw ma naan la ñaari fan ñetti fan ñeenti fan demal yóbbul sa xaalis xam ne dama lay nax tax xala benn heure laa koy dindi muy diggante timis ak gee hmm. du ma waxati sax benn jour ndax timis ak gee matut jour bu dee feebar ñaari diggante timis ak gee matut sax deux jours boo calculé temps bi hmm. Hmm. bu dee samp su ma la xasee ba samp doomu aadama mënatut ci yow dara nee naa la lépp lu ma bëgg a def su ma ko tiimee di ko def fi may fi ma koy defee rek pour ma dee rek moom moo mën a teem a def ko waaye damay faj aajo di dindi aajo gaa yi nag nan xool nu ko tuddee baax na. waaye man li may def def naa ko pare jaam mënatu ci dara. dëgg la waaw. Eh, bëggoon naa xam xeeru xeeru xonq yi fu mu jugee. waaw xeer yi fan xeer yi yu ci bari dama yéeg ci kaw jaww ji dama wuti ko ci suuf maa wàcc ci dëkk wuti ko yéegaat ci kaw ñëwaat wàccaat sama dëkk. maam loo yéegee avion wala da nga plongé noo def. déedéet dama yéeg avion. avion ok parce que gars kaw jaww ji mën ñoo jàpp ne. da nga da waaw loolu moom ñiy théâtre mën nañ ko waxaay man théâtre ma. jël. waaw dama jël avion wàcc wut li may wut ñëwaat andi ko. xeer yi am na ci lim bu ma la ciy jox jox la lu mu koy booleel nga sangoo ko soo ko sangoyee bu doon da laa liggéey boo xëyee da ngay dem sa yoon bu doon da ngaa tëdd ak lu mën a dal. Hmm. sëñ bi damay faj aajo. ñu ñëw bi. waaw bi nag euh, yaakaar naa fii rek ngay ñëw fekk ko fi. waaw béjjën bii mooy nekk man bu may toog di liggéey waaye amaana ñeneen ñaari béjjën yoo xam ku yàlla dimbaliwut doo ko teg bët. Mhm. ku yàlla dimbaliwut doo ko teg bët. waaw boobu bu ma dee def lu ma neex kooku su ma ko tiimee lu ma neex laa ciy def. kooku bu ma ko lu ma neex laa ciy def lu ma neex. Ah. kenn mun koo dindi kenn mën koo dindi nee naa la kay sëñ bi ku bëgg may bañ a faj aajo del ñaan saa yu ma xëyee may dee ma dee rek. kese. ku may noonoo daal wala nga ku ma noonoo yàqu ku ma laal yàqu. te àdduna maanaam Sénégal laa laa lancé défi de bàyyiwuma kenn. comme mm-hmm. neex jëlal sama tur. Fallou ñaan la 31 décembre 1996. doomi ummi ñaan comme neex nga jël ko senegal gépp dama lancé ñëpp défi. ñu xool ba xam man may kan ak kii wax kan la ba pare. Hmm. wax ji de leer na mais Sëñ Fallou bu fekkee jigéen gu bëgg jëkkër mu tëkku nag ku bëgg jëkkër koo xamante ni ah toog na rakkam sëy sëyiwul rakkam am doom doomi rakkam sëy mënta sëy jigéen koo xamante ni ah sëy da koo jafe. yooyu ci diggante timis ak gee rek laa koy def moom it. ci diggante timis ak gee laa koy faj. te bu fekkee ku yorul sax bu ñëwee ma dimbali ko. oh ndeysaan waaw loolu ci diggante timis ak gee laa koy faj bu dee ku yorul ma dimbali ko ndax man damay dimbaliwaat de. nekkuma fi rek na ne waaw damay dimbaliwaate de damay faj aajo di dimbaliwaate li ma ko li ma may xam-xam nag xam naa ne dimbali nit ñi ak yéene ji yéene ji ma am ci ñoom mm-hmm. moom la ma yàlla dimbaliwaat ndax man avant may dugg ci sëriñ gi di ñaan xam nga dama doon nekk ci ay cabinet mm-hmm. waaye mas na maa bind procès boo xam si procès bi mu ngi ci samay kayit ku ñëw ma génne la procès bi ma njëkk a bind dama bindoon procès boo xam ne maanaam damay wut ay xaalis yi baram xaalis yi pour ñëw toog di faj nit ñi nga xam ne amuñu billaahi wallaahi procès bi ma njëkk a bind lool la te dan ma koo bindal man maa fay nit mu bind ko te procès ba mujj ma ko sax joxe oh. loolu la ma yàlla fayee moo tax léegi damay faj aajo nit mën ngaa ñëw yori million di ma fontoo boo ñëwee boo ma joxee pare mën na maa taxawaat ci mbedd mi ci sama mbokk yi ci bitti génn joxewaat ko ba mu jeex te nit ñaa ngi koy gis ma di ko def waaw kon bu xaalis euh, ñaan tey boo xoolee politiciens yi euh, jaxase nañ dëkk jamono jii de ruube diggante Sonko Adji Sarr Pape Alé ñaa génn kaso ñu jàpp ne day noppi mu génn gën a def bruit laay fi tàmbaliwaat euh, politiciens yi jàppoo ne benn saa bu ñu seen làmmiñ dëkk bi du nekk jàmm. waaw dana war di xool intérêt réew mi rek waaye waru waruñoo xool suñu intérêt coow li koy ëpp indi lépp ñun suñu intérêt rek la xool kenn xoolu ci intérêt réew mi waaye bu ñu xooleen intérêt réew mi rek. dina baax daal. alhamdulilah ñuy xool ñiy def li ñuy def ñu ne ah diwkat mi ngi def nangam mi ngi def nangam ñu ne ah lim def kat baax na. Hmm. ñu ne ñu ne waaye mi ngi def nangam nangam lim def baaxul waaye li baaxul baaxul rek. Hmm. wala kee bon na bon na rek. Hmm. faaw ñu jéem a jógaat ci suñ biir ñoom nag <clears throat> man moom duma wax ci politiciens yi ndax ñoom daanaka ñu ngi liggéeyaat seen biir ku ci nekk yaa ngi def sa morom loo xam ne si yaa ngi yóbbu sa morom kat ab ñoom seen xeex moom xeexu baatin ci la nekk jamono ji wax jeefi ne rek ñi xamul rek ay wax waaye ñoom ci seen biir ñi ngi xeex xeexu baatin bu méttee méttee métt te maa ngi lay wax benn affaire boo xam ne si ci camp caserne sàmba Diéry Diallo ak camp camp kii Jal Diop buñ fa mënee def buñ fa mënee yóbbu nag bu weex mm-hmm. ak ceeb ñu togg rey leen ci camp yi mm-hmm. togg ay ceeb génnee ko joxe leen li ci biir camp bi ña fa ne ñu génnee ko jox ko nit ñi. Mm-hmm. loolu baax na fa lool. waaw ci ca bi. na ko soldat sa def. waaw loolu moom faaw état defal leen ko wala ñu def ko. Mm-hmm. ndax lu ko mooy rek lu bëree bëri dina xew. dina xew te yàlla bu dara xew. waaw. a euh, tàggatoo ak lan nga wax askan wi lay suivre ci MPROD waaw di wax ñëpp rek ñu nekk ci jàmm. Mm-hmm. waaw di ñaanal ñëpp jàmm. waaw. di ñaanal ñëpp jàmm rek laay def. ndax am na lu ma yàlla may. moo tax ñëpp laay ñaanal jàmm di ñaanal réew mi jàmm rek. waaw bu jàmm amee rek lépp lépp baax. aca mbokk yi dégg ngeen Serigne Fallou ñaan euh, le grand marabout li mu waxtaanee tey euh, jëmm la joo xamante ni soo ko dégloo xam ne ku yàlla may la Serigne Fallou mi mbokk yi xam-xam li mu ko jaral jàpp ma ne ñi mu ko jaral bëri na ngir fu nekk dem na fa ci àdduna. di fa jariñ jaamu yàlla li ne ci moom dogalu yàlla waaye li ne ci moom coobaree suñu borom la li tax nit ki su amee problème mu alal wala nga banque wala nga ñàkk soo ñëwee bu la sangee nga génn tijjeeku tàkk ñëpp dégg la bu fekkee da ngay jaay commerçant wala commerçante yor boutique wala place li tax boo ko seetsee mu faj say aajo ngay jaral yaakaar naa loolu lépp mbirum suñu borom la ay ca numéro yaa ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek di nga ko jot mbokk yi doon topp di ñu suivre ci MPROD TV yi yàlla na ngeen bëri jàmm ci dara jeey Muhammad Rasulullah